Pape Ndaw nekk opérateur économique nekk éleveur tey euh, ñu nekk ci Tabaski 2019 mu mel ni jafe-jafe daa mel ni jafe-jafe dafa nar a am ci wàllu rek euh, xar yi euh, tey Pape lan moo doon say kàddu. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla jëm ci yoon bi salaatu sama kàddu moom mooy donc si Pape Ndaw donc chargé du relation extérieure et communication bu rëy ma ñëwoon fii doxantu. xool ce qui ba xam xar yi euh, dina mën a yomb pour askan bi wala du mën a yomb pour askan bi parce que booy xool rëyit bâche mu def fi nga xamante ni moom mooy au niveau de Diamaguène sur le rond point je pense que ni foofu boo fa duggee xam ni rëyit dafa fa def benn bâche di fa jaay xar pour yombalal ko ñi nga xam ñooy maam yi mais au delà de ça donc ñun Cees la ñu dëkk donc waruñu gën mën a yaatal moo tax ma doxagu au niveau de rond point Ndiène pour xool ce qui se passe mais fii liñ ciy gis moom mooy xar yi cher na ba pare en plus vraiment bariwul donc bariwul te cher na te donc njàqare gis naa ni ñu commencé ci tuuti ci population yi donc xaw ma nag euh, situation bi lan moo ko waral mais xam naa ni dinañ gën a gëstu pour xam lan moo waral situation bi xool ak les autorités compétentes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi waxtaan ak ñoom ñu xool situation bi naka lay tëddee parce que xam naa ni situation bu fekkee dafay gën a poussé ba nga xamante ni lii vraiment même bu dee am ren tamit ñu def tout ba bañ a amaat parce que gis nañu bii xar yi vraiment cher na trop et en temps li gën a grave mooy bariwul donc booy xool nit ñi ñoo ëpp xar yi ah. donc waaw day waar. Ah, baax na jéem a xoolaat rek kon. ah jéem a xoolaat ngay xam ne carte yi tamit cent soixante-quinze yi tamit après 180 170 même waaw na kon ñu nga bëri en tant que éleveur xar bi est-ce que jar na 180. waaw en tant que éleveur quand moo ko xoolee dafa desee fees rek mais wax dëgg yàlla man damay jàpp ni bu feesoon dina jar na sa 200000 wax dëgg yàlla mais xar la boo xam ni man je kii moom xaw ma kan mais il est raisonnable quand même maa ngi xool ak xam naa ni foofu kenn jënd ragal naa dinaa ko jënd. naa jëndoo mooy 10 xar donc ci loolu laa nekk ci dara